salaamaaleykum mbokk internet yi ñu safoo di ñu seetaan saa su nekk fii euh, dakarnet point com comme lu ma koy defee di am mbégte di war artistes yi ndaanaan yi nekk fii Sénégal te ñu ci dalal koo xam ne kenn door ko présenté ci Sénégal euh, muy Keftu ci da nga koy jox kàddu mu nuyoo rek après ñu digg ak moom ci waxtaan euh, Keftu ñu leen di di la ziar. maa ngi lay fay bu baax Abdou la waaw maa ngi lay fay bu baax di kontaan ci seet si bi ma seet si di nuyu internetu Dakarnet. TV yëpp di nuyu ñëpp képp koo xam ne rek euh, doomu Sénégal nga wala képp kuy seetaan waxtu wi. Ah, kon li ñu durul fuus dugg ci waxtaan bi. waaw ah, li ñu laaj mooy que ne képp showbiz bi temps yi mu demee. Mhm. bari coow waaye moom laay wax mooy détails yi may wax. waaw nga leen laaj yow en tant que animatrice. Mhm. nan ko gisee. waaw euh, du ma si mën a sori. ndax mhm. ñoom ñaar ñëpp doomu Sénégal lañu. mais li ma bëgg rek mooy ñu bàyyi xamb ak ji. Euh, attardé wu ci ay détails ñi ngi ci moment Covid corona. ñi ngi ci moment boo xam ne économie yi daanu na ñi ngi ci moment wu nit ñi jaaxle Sénégal métti lool ay xale di jël ay gaal di dugg di dem mm-hmm. euh, jaaxle dëkk bi métti ci ñenn ñi du ñëpp sax mais métti na te loolu dañ koy dund chaque fois donc xam nañu ne Sénégal dafa war a am ci leneen lu ñu yëngu lu dul euh, kii moo mën lii kii moo mën kii moo mën la leen nañu moytu supporters yi ñiy tàggale Sidi Diop ak Waly Seck ñoo bokk ndey ak baay aussi tey bu ñu gis ñu génn même son boo xam ne dafa nduroo kii waay ci waay papa ñoo bokk ndey ak xam nga mhm. euh, showbiz àdduna mafia la bis ku nekk da ngay xool li ngay def pour exister d'accord lépp nekk ci biir mhm. yow li nga xam ne moo am solo rek mooy nga doxal sa yoon mhm. doxal sa yoon def la nga xam ne moom nga war a def ah ci ci ci àdduna mooy que ñoom ñaar ñëpp samay rakk lañ samay doom lañ Wally Seck bi muy commencé man ak moom ay début yam la woon ba ma koy defal 24 heures ak. Mhm. booba siiweewuloon nii. waaw jaar na ci man. mu mhm. nekk xale bu baax. xale bu euh, gëm boppam. Mhm. ba pare tam euh, fekk papaam di way. mu xëy jël relève bi te mu jéewul puso bi mu réer. ki ñuy wax Sidi Diop tamit ndaanaan la dafa judduwaale ak talent. talent boo xam ne am na ko. mën na ko te dafa ñafe ba exil boppam fii kon Sénégal ñoo bokk ñoo bokk ñun ñëpp nañu bàyyi animosité yi tey yi nga xam ne moom mooy am te jublu ci jéem a seet luy doxale suñu réew kanam moo gën a am euh, li nga xam ne moom moo di importance mais nag lii du ne gulee temps mm-hmm. lu yàgg la boo remonté histoire euh, dualité day am souvent dañuy tëggee ay woykat mm-hmm. tëggee nañ fi Youssou Ndour ak Omar Pène Mhm. tëggee nañu fi Youssou Ndour rek Thione Seck tëggee nañu fi waa Waly Seck ak Pape mhm. sénégal sénégalais ñoo bëgg loolu te loolu fépp la ci àdduna bi mhm. mais nañ ko rafetal rek te ñi nga xam ne ñooy xam ñu bàyyi leen ndax Waly Seck borom xol bu rafet la sii di Diop tam borom xol bu rafet la jàmm rek moom moo ci mën a am mais kenn mënul bañ dualité ci musique ndax foofu la àdduna toll surtout ak numérique bi nu mu demee dangay génn tey dara dugal ko ci plateforme yi. suba sa moroom dugal ko moo tax ma ne la nañu moytu ñi leen di infiltrer ndax ñoom xëy na ñooy jaxase. Mm-hmm. Euh, nit yi di tëggee daal di comparer mais peut-être c'est pas méchant. Mm-hmm. ndax ñi ngi comparer di dund gis ak ki nga xam ne moom moo di. Mm-hmm. ngaaka bu leen de foo dem rek am na dualité <laughs> dañuy dañuy dañuy tëggee rek Sénégal mais na rafet rek ndax lépp. à fin de la journée ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. te lépp benn la bu mu egg yenn extrémité yi. parce que loolu amul solo nekkatul du combat musique dafa war a bégal la musique dafay adoucir li nga xam ne moom moo di euh, euh, am donc euh, ñaar ñi nga xam ne ñoo doon mag ñi fi nekkoon. Mm-hmm. amoon na dualité seen diggante Youssou Ndour Thione Seck Baaba Maal Ismaël Lo mais dañ koo rafetal ba mu rafet. kon ñoom it nañu topp loolu rek ñu ñu rafetal ko te yàlla na yàlla jàppale ñëpp daal Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. mais présentatrice bi nga nekk ba xam am nga leneen ci looy yëngu. waaw loolu moom question bu ma neex la maa ngi am euh, leneen lu may yëngu euh, loo xamante ne mooy damay euh, tàmbali seen liggéey bi ngeen di def. Mm-hmm. am naa ci loo xam ne tàmbali naa ko ci. bëggaguma cee sori. ndax loolu laa jàng te loolu laa xam te nit ki li nga jàng te xam ko. Mm-hmm. ba ci kenn nekkul nga nekk ci da nga ciy continuer. ndax dañoo toll à l'ère du numérique. Mm-hmm. le monde est devenu village planétaire. fu waay Japon léegi ak sa téléphone ci cinq secondes mhm. kon rien n'est mhm. yëf yi dafa gaaw mhm. te ñu ngi ci à l'ère du numérique Euh, foofu la àdduna toll te boo de boo ci bokkulee sax dañuy da ngay nekk en déphasage nit ñi dem bàyyi la donc du coup man itam maa ngi aspiré a jëm ci loolu utal ko continue mhm. euh, maa ngi ciy liggéey depuis bu yàgg donc loolu beneen liggéey la boo xam ne maa ngi koy waajal mhm. ak itam euh, am naa boutique boo xam ne maa ngi koy waaj a ubbi kepp pop la tudd parce que xam nga man jigéen mhm. lépp lu koy taaral rek dama ci dama ci yëngu ndax fu ne laay dem ci àdduna bi nag andi ko fas yéene ko ubbi keps pop waaw donc loolu ñaari business la yoo xam ne maa ngi ciy yëngu mm-hmm. waaw incha allah di la ñaanal tamit ah, suñu borom ah, yeggale ko amiin ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam question bi lay laajaat mooy que dañ la gisoon la rubrique ah, permanence mm-hmm. ñu gisoon ko ak ci tamit nga koy proposé ak mm-hmm. différence programme TFM bi ñu laa est-ce nekkul loolu nekkul lance gardien de la TFM wala ah mun naa nekk de <laughs> ma ne ko mun naa nekk de loo xalaat rek mun naa nekk gis nga ah, àdduna. loolu ah, ñun noonu lañ ko jàppee de ah, kii waaw waaw parce que nag ba ma mhm. commencé tele nag ah ubbi naa de alaaj Njaay de am na lum ma waxoon. macha mhm. allah ne ma jigadi ma yaa ma jig. <laughs> waaw mhm. kon man maa ubbi 2STV numéro zéro bi man maa ko def permanence boobu ngay wax tam man yaayu seex laa tubaarkàlla macha allah. du ma catu sama bopp waaye Euh, yàlla baax na daal. Mhm. mun naa nekk de. mun na nekk waaw. <laughs> ñu ngi wax ci suuf de. am nga kuy génn télé rek am na am na ay bagages yooyu àndal. am na bagages yooyu waaw. <laughs> yëpp lay laajaat rek ni ah, ñu gis ne jamono jii nii. Mhm. Ah, nouvelle génération jug na. Mhm. ñu ci bëgg nekk journaliste. ak ah, présentateurs yi. ba ci présentatrices yi. ñu laaj tey ji yow lan nga leen mën a wax. waaw li ma leen mën a wax rek mooy métier bu noble la. gis nga àdduna li ma la waxoon day dellu si kenn ku nekk danga am liberté choisir ne lii laa bëgg a def mais nag boo ko tànnee ba pare il faut te donner les moyens boo ko defee kenn du la ci jéppi te kenn du la ci mere ndax euh, da ngay invité wu ci kër ay nit invité wu ci kër ay kilifa nga fexe ba li ngay wax du safaanoo loolu nag yàlla suñu borom rek moo ko mën ndax ay nit lañu wax naa la ko du ñu ay xut bu zamaan mhm. mais nga fexe ba boo bëggee dara ne lii laa bëgg nga jàng ko ndax jàng du weesu jàng ko ni nga koy jàngee bëri na ay kàngam yu fi nekk yoo xam ne mun nañ laa teg ci yoon nga bañ a rëy dem seeti ñi nga xam ne jiitu nañ la ci métier bi ndax ki la jiitu ci nekk bu tàgg muy lëndam mhm. moo lay won ni ñu koy taalee mais est-ce que di nga jékki-jékki comme ay animatrice ñëw ci yow ne la ah, dañoo bëgg nga joxuñu conseil noo non non non loolu ah am na ñaar ñoo xam ne mus nañ ko def ah, mi ngi mel ne ku tudd caat caat caat dama mhm. koy caat ah, sama rakk la mhm. boo xam ne moom am na humilité boobu Mm-hmm. am na également euh, euh, Eva am na am na ay xale yu yoo xam ne xëy na am na lu ñu ma nangul mm-hmm. jox nañ ma cër ñoom dinañ ñëw euh, mm-hmm. dinañ ma woo waxtaan amul dara nag loo xam ne indil naa leen ko ci seen liggéey parce que gënuma leen gënuma leen aay gënuma leen xam mais expérience bi waaw mais def nañu geste yoo xam ne marqué nañ ma am na tam beneen xale boo xam ne mu ngi nekk euh, waaye damay fàtte tur bi Sen TV tey def affaire musique bi tamit mhm. waaw moom tamit euh, vraiment mhm. waaw delloon na ma njukkal mhm. donc euh, mi ngi noonu noonu la man xaw ma dara mënuma dara duma kenn waaye nag ku ku ma jege rek lépp lu ma xam ci lu gàtt su mu gàtt gàtt def naa fi lu ne nag ci émission gars yi nañuy delluwaat ci archive yi di xool même si c'est nekkatul en phase ak nit yi xam nga Sénégal dañu am benn problème mooy euh, tey jii boo demoon euh, ci dëkku tubaab yi ay INA ak yooyu boo bësee rek dina la génneel seen première émission ba dernière émission genn wàll liggéey bi ma def peut-être xale yi ñëw léegi gisuñu ko mhm. xamuñu ko mhm. li ngay gis ci YouTube mooy quelque yi ñu def mhm. mais lu ne liggéey naa ko ci télé def naa téeméeri junni émission mais peut-être euh, amuñu woon archivé wuñu mais mais mais mais mi ngi fi waaw def naa ko te boo nekkee ci métier. Mhm. Euh, da ngay fexe ba loo fi def tamit même bu fekkente ne euh, génération bu ñëw. Mhm. ak liy xew waaye li nga defoon nañu fexe ba ni def naa fi lii kat mhm. te mu ngi fi tege. ba léegi nga am trace boo bàyyi. parce que nag amul dara loo xam ne sa éternel te day continuer métier animatrice c'est éphémère dafa gàtt. day am quelque temps rek man li ma ci defoon dootuma ko ci defati mais nag dese naa loo xam ni. ndax télévision continue la laaj. Euh, du couper rek ñëw def euh, am naa ci loo xam ne chaque jour moo wax ko defaguñu pepp sax ci télé. pepp bu gën a ndaw sax defaguñ ko. y a de choses Sénégal am na lu ñu mën a raconter lu bëri loo xam ne war nañ ko mën a def mais man dama am lu may metti souvent mooy dañuy gën a attardé wu ci ay détails. ay détails waaw ay détails ay xëccoo fii. Mm-hmm. kii mi ngi def lii kii mu ngi def laa pendant ce temps. Mm-hmm. nit ñaa ngi ñuy romb di dem. suñu réew kenn mënuñu koo liggéeyal ñun ñoo ko mën a liggéeyal suñu bopp. Mm-hmm. nga fexe. Mm-hmm. andi ci la nga mën ngir réew mi dem kenn duñu ko defaral. Mm-hmm. du njiit yii de kenn ku ne sa bopp nga fi nekkal. kon kenn ku ne na nga jël ses responsabilité dem entreprendre mm-hmm. vingt mille francs sax mun na entreprendre lu jur ay millions. nga entreprendre xam fi nga koy jaarale. gëm sa bopp ndax fii kenn gënul kenn yàlla rek a fi ne képp ku bëgg métier animatrice nag. dem ci ba mu jeex. dem ci ba mu jeex mais euh, gëstuwaatal. ba pare nga bañ a jiital sensationnel. Mhm. nga andi contenu andi loo xam ne day resté dafa am solo.